Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee na daal fukki fan ak ñett ci weer septembre bii ñu nekk élimaani jëriñ di Ousmane Sonko dina jàkkaarloog député yi journal bi nii mbir yi daal am na jeexi jaaxa te yëngu na daal ca jamono jooj nak nag Walf Quotidien ni dara yënguwul ndaxte Bassirou Diomaye Diakhar fay am na fu mu teg yëf yi dat wi nga xamante ne nag jàpp na ko ngir Ousmane Sonko amal déclaration de politique générale am boobu am na fu mu ko teg journal bi dina ko xamal ca jamono jooj nag l'observateur dal ministre bii di Yankhoba Diémé dina waral njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye jàpp fukki fan ak ñett ci weer septembre bi ñu nekk ngir Ousmane Sonko dem ca péncu ndaw réew ma ngir amal déclaration de politique générale am boobulee ak bataaxal bi nga xamante ni moom la jébbal waa assemblée nationale ngir recadrer leen waaye nag ana lan moo war a xew ginnaaw bu ñu defee déclaration de politique générale lee ba noppi ak luñ ci mënti am Ousmane Sonko mu ngi jàll ci terrain bu bëri xaaxam ngir jëm ca député ya bi la jour delloo buum ca mboy ba nee na le 11 cabinet ak lu ci mënti am waa Benno Bokk Yaakaar ñoom nag seen xele yi teey ci mbir mi nee na ñoom balaa ñu koy gëm foog ñu gis Ousmane Sonko ci pencum ndaw réew ma ndaxte ñoom tasub assemblée national lañu gën a yaakaar que Ousmane Sonko ñëw te pencum ndaw réew ma di def déclaration de politique générale am boobulee déclaration de politique générale ak loi 9 2023 bi nga xamante ne nag daal nañ koy retiré loi boobu nag mu ngi doon wax ci càmbar gi nga xamante ne nag waroon ko càmbar yoronu assemblée nationale ci atum 2022 bés bi la projet de loi boobule daal nañ koy retiré ca jamono jooj nag le soleil yéene kaay ñëwaat ak ñun ca ñeenteelu bëccëg setal sunu réew élimaanu jëwri ñi di Ousmane Sonko jamono ji nag ñuy wax ak yéen ma ngi ca Matam foofu la war a amalee bëccëg bi moom nag ñaax na bu baax askan wi ñu ñu daal di dakkal accident yi nga xamante nag mooy am ci tali bi ak doomu aadama yi nga xamante ni tamit ñooy lap ci deex googulee maatam nag noppi nanu ngir dalal élimaanu jëwri ñi di Sonko Ousmane Sonko nag wax nag moom la sangu ci plage yooyu le sa bakkan a ngi ciy xott le soleil yéene kaay ni juróom-ñaar téeméeri doomu aadama ñu ngi faatu ci kaw tali bi at bu jot journal bi ne bee da nag liggéey ba yéex na loolu waaye nag mbir yaa ngay avancé de enquête yéene kaay ñëwaat ak ñun ci usine farine u jën bi nga xamante nag moo di Omega Fission usine boobu le nag indi na coow lu rëy ca gox woowu le nga xamante nag moo di Joal Fadiouth ndaxte saxaar si nga xamante ne mooy génn ci usine bi nit indi na ak wéré di ci askan wa nga xamante nag ñoo yeewoo ca Joal Fadiouth xamante nag sosu na fa di ngàññ bu baax usine boobu nga xamante nag mi ngi indi njeextal ci seen wérgu yaram ñoom nag li ñu bëgg moo di ñu daal di sepp foofu usine boobu daal di koy yóbbu feneen mairie Joal nag naan ak lu ci mënti am moom yoonam nekku ci laale wu ci taq ci libération yéene kaay ni ki ñu libéré wul kay mooy commissaire Keita moom mi nga xamante nag mi ngi ci guddi gu bët setagul jamono ji nag ñuy wax ak yéen mi ngi ci loxoy division des investigations criminelles ginnaaw ba procureur yable ngir ñu jëli ko këram daal di koy yoon tegagum naka loxo moom mii di njiitu force dooleel askan wi am na ab retour de parquet te ëllëgam nag altine bii di ñëw nañ ci xam dara moo tax journal bi ne gémmiñ guy nàcc nag du wax jàmm ndax moom nag luñ koy toppee moo di wax ay xibaar yu wérul moo tax nag procureur santaane ñu ubbi ci information judiciaire ci wàll wi jamono ji nag commissaire Keita mi ngi ci loxo yoon les échos yéenekaay ne match bi doxoon diggante équipe nationale bu Sénégal ak bu Burkina Faso dañoo témboo kenn ku ci nekk nag dugal sa kangu morom benn bit moo tax journal bi ne amul suuf naa dañuy seppi sa loxo Aliou Cissé nag démb supporters yi dañ ko yooxoo yooxoo ba xamul fan bunt lay génnee moo tax nag supporters yi laataa kilifa yi ñoom dakkal nan kontra Aliou Cissé nee na ñoom suur nañ ko këll ñu nekk Aliou basta ndax système bi mu teg démb kenn xamul ban système la remplaçant yi kenn xamul naka la ko defee ak ci ban anam moo tax nag gaynde yu Sénégal démb dañoo am mbetteel ba noppi dañoo mer ba futtu ñu des ci tàggat yaram ak réew mi sport nee na qualification CAN 2025 sunu gaynde yi làmboo kenn ku ci nekk dugal sa kangu morom benn journal bi ne lii moom akub lajj lañ ko jàppee ndax loolu rek la mën a doon record yéene kaay ñëwaat ak ñun ci match qualification CAN 2025 nee na sunu gaynde ñoom nërmeelu nañu ci seenub terrain te Burkina Faso ñibbi nak benn poñ Rewmi Sport Ligue des Nations nee na équipe France bu Italie ñoo leen làpp-làpp yu metti ñetti bal ci benn ñu yendoog jàmm Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñu leen doon